Pastef yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba di wéy di amal ay yëngu-yëngu ginnaaw bi ñu jugee ci don de sang bi ñu doon amal lu yàggul dara jamono ji nag ñu ngay gën di wéyal seen activité mu mel ni nag jamono ji amal nañ journée de massification ngir gën a yaatal seen parti bii di Pastef te Ousmane Sonko nekk ci bopp bi Babacar Sarr bokk ci bile parti di chargé de communication di ca mbir yàq na mu demee. Pastef national dafa lancé week localité yëpp war ko doxal ñun fii ci Touba comme que lu Pastef organisé ñu ci des ginnaaw don de sang bi demoon def nañ suñu don de sang ñu ngi ci deux éditions tey aussi ñu wàcce marché Ocass pour def lu ñu wax invasion d' espace public ñëw saafantoog militants yi ak sympathisants yi jaayaale ay carte waxtaan ak ñoom. li ñu gis moom vraiment euh, dafa dafa daf ñu bett sax engouement bi ñu nit ñi ak nit nit ñi fonkee Ousmane Sonko daf ñu daf ñu sax dépassé vraiment donc lii moom dal na te xam naa ne marché bi comme que marché Ocass mooy marché bi ëpp ci région de Diourbel dinañ fi def 10 visites wala 11 visites incha allah. ñun dañu gën a accès tey suñu communication comme ni ñu ko président santé ñu doxal nekk ñu si ay xuloo nekkuñu ci ay xiiroo nekkuñu ci ay xaste ku si nekk sa position bi nga jël yow la concerné en tout cas ñun ñu ngi dugg saafonteeg nit ñi di waxtaan ak ñoom li ñu gis nag mooy ñu ci bëri wax nañu loolu. daanaka quatre vingt pour cent ñu ngi ko sante loolu la ñu wax bàyyi nañ fële ñu ngi fii ndax ñee gëmuñu dara te yéen yéen a ngi seen constance yéen a ngi seen cohérence ginnaaw bi ñu amalee seen ne boobee ci marché Ocass ngir gën a xamal ndaw yi ci seen parti bi ni liggéeyal Sénégal rek moo leen ñoro Mouhamed Ndiaye di porte parole ci comité de massification bi di xamle ne ni leen askan wi teeroo lu kawe seen joxtu la ak it di weddi kàddu yu ñuy yëkkati di ko tekk ci seen jiital parti bii di Ousmane Sonko. déception totale lañu la ñu fekk ci ci ci jeunes yi. ak population bi. parce que bi ñu duggee ci marché bi ni ñu accueillir ak ak ak ak impact bi mu am nit ñi ni ñu yàkkamtee woon ñu ñëw donc loolu firnde la ci ne nit ñi am na foo xamante ne bi daal euh, nekkatuñ fa. donc bi bi ñu bi ñu ñëwee tamit li ñu indoon ci ay bloc gis nga ko jaay nañ ci bloc yu bari aussi tamit jël nañ ci ay jël nañ fi ay ay fiches de renseignement yu bëree bëri yoo xamante ne bi ñu bëri parce que li ñu indiwoon ci ay bloc sax dafa dafa mujj jeex donc kon loolu mooy wane ne nit ñi yitte woon nañ Pastef trop. Serigne Mbaye Guèye nekkee ci marché Ocass dikkaat ci kàddu yu leeral ak lan moo ko tax a dugg ci bile parti. parti bi nag euh, yàgg naa rafetlu seen liggéey surtout sunu seen leader muy Ousmane Sonko. lu nekk boo koy seet bala nga cee dugg war nga koo seet waaye Ousmane Sonko wax dëgg yàlla gis naa ci moom ay qualité yu bari nit ku dëggu la. te li mu nekk gëm na ko. demoon naa ba daal politique bi jaxasoo na ci Sénégal ba xamutoo kenn xamutul foo jëm diggante Idrissa Seck ak Ousmane Sonko foofu laa doon. diggante boobu laa doon xool am am ra de choix naan kan laa ci war a àndal mais nag fi mu nekk nii yëf yi leer na ci man amatuma léegi question bu may posé c'est clair maintenant xam nga li ma la wax léegi nag man maa ngi ci Ousmane Sonko ba ba géej gi fer mu mel ni nag jamono jii ndaw yu Pastef yi nekkee ci dëkk bi sell bi di Touba ñu ngi gën a takkuwaat ngir jàppale Ousmane Sonko ngir mu mën a am ndam ci élection yi ñu dëdmal ak it di gën a leeral askan wi ne journée ne massification bi weekend bu jot dinañ ko woy di amal ngir gën a yaatal seen parti bii di Pastef ak it gën a xamal askan wi kan mooy Ousmane Sonko mii di njiital parti bii di Pastef